pen de mort bi dafa wara ñëwaat. deug la. jërë ngeen jëf mbokk internet Cinevox Plus ñu ngi leen di jaajëfal bu baaxa baax top gi ngeen ñuy topp waaye rawatina ànd bi ngeen and ak ñun. ñu ngi jakkaru jëmm joo xamante ne nag jëmm ju yéeme la ci walu xam-xam waye tamit jëmm ju yéeme la ci walu lasar mom nak don na ko xamantene kenn ko presenter ci réseau yi mo xam plateforme yi la mo xam TikTok la mo xam YouTube la fu mu ta don dañu koy baye xel bu baax a baax tay nañu tey sikh mom waxtan bi ci jiddu bokku na ci kaw Aziz dawla bi wax deug fi yalla moy ray bi ñaaw bo nga xamantene ray nañ ko benen bi ci top nak dinañ waxtane li nga xamantene mom moy mooy ñaan mais laata lolu dañ koy baye mu nuyu mbokku internet yi Serigne Cheikh pap Diagne ma ngi lay xiar te di la nuyu. assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki juliti yi talibi ñoo ngi nuyu ku ci ne ci turum assistantam si santam fépp fu mu mënti ci aduna bi. di leen jox suma loxo di leen nuyu nuyu bu tedd di wax asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu. bismillah. macha allah Aïcha mi ngi noonu sëriñ bi dañuy daal koy tàmbalee ak actualité tey ku nekk xam ne ni tey mooy mardi. Nabou Leye war a jàkkaarloog ñi nga xamante ni moom mooy procureur bi ci affaire boobu nga xamante ne xew na ci fan yee ci ginnaaw muy kawu Aziz Dabala bi nga doon kilifa bokk ci réew mi dëkk ci réew mi bi nga déggee loolu noonu en tant que kilifa nan la la def. waa tey ji lii njëkk mhm. wax ci jullit bi su juddoo mhm. muy judd na ci farata yàlla ak sunna muhammad sallallahu alayhi wa mu nekk ay doomu jullit li njëkk ci dënn bi mooy alquraanul karim Mawlana Cheikh Ibrahim day faral di wax ne doom boo ko juree alquraan njëkk ci dënnam mu ne lépp loo teg ci dënnam mu ne bénéfice la waaye doom bi wàccoon na ak way juram loolu la bàyyi ñu si wax mhm. di wax ne lor sa mbokkum jullit wala mhm. lor sa moroom mhm. bu dul jullit bu dul dara rol nit dafa baaxul dafa baaxul moom la Cheikh Otiyaan di wax ci jawatu ko man naan ifaadatika min ka ilayka mu ne bal tagse la boo xam ni dangay ngay dóor ci miir bi mu ñëwaat ci yow mooy yéen a nekk la borom a ci fanaan lu waaye di rend it si sa loxo lay naaj di ñaanal yàlla Aziz te du Aziz rek moo dee ci àdduna bi gaa nag moo gën a siiw. waaye adduna bi ñu wàcc tey bëri na. Mm-hmm. ñi ñu rey bëri na. Mm-hmm. ñu ñu violé rey leen bëri na. Mm-hmm. ñu ñu def naa nga bëri na. waaye moom daf ci gën a siw rek. waaye ni ñu koy ñaanalee yàlla yërëm ko suuf ayob ci kawam. dañ koy ñaanalee mboolem mbokkum jullit fu mu mënti nekk ci àdduna bi. ñoo ngi lay ñaanal suuf ayof seen kaw ci zaahiran wa baatinan di wax ne yàlla na fi géej yàlla bu mu amati ci barka alquraanu karim. loolu daal xam naa ne loolu dinañ ci sànni suñu kàddu jullit bu maandu noonu lay def. macha allah xamuñu lan lañ doon dundee. Mhm. xamuñu ñoom ci lu ñu nekkoon. waaye mhm. yàlla mi xam. Mhm. te yor yërmande yal na yàlla yërëm leen. te jéggal leen ñi nga xam nag ñoo def ñaawteef bi. police na def liggéeyam. dëcc du suñu moom rek. xam na ñu bari ñu nekk ci kaso bi tey ñu ngi mandat dépôt. ñu bari ci kaso bi tey ñu ngi ci kaso bi fi mu nekk nii nii nii may xa yow. dëgg la ñoo xam jugé guñ leen sax. te dañ leen war a tamit. ñoo xam dañoo violé rey. Mm-hmm. am na ñoo xam dañoo violer rey. Mm-hmm. te peine de mort bi dafa war a ñëwaat. dëgg la. waaw dafa war a ñëwaat biir Sénégal. Mm-hmm. ñu appliqué ko ci ñëpp ku rey ñu rey la yàlla ëpp yërmande ñëpp. te moo ñu wax ne ku rey nañ ko rey. macha allah ku sàcc ñu dagg loxo. kon daal foofu la tëjee. di ci ñaanal yàlla yàlla yërëm leen. Mm-hmm. te jéggal leen defal ko mboolem jullit ci zaahiran ba baat nan mm-hmm. waaye kilifa gi yow mi nga xamante ne nga bokk ci réew mi tey d'accord nga ni peine dañ ko war a indiwaat waaw dañ ko war a indiwaat bu baax a baax baax parce ku rey dañ la war a rey surtout nga am certitude mm-hmm. ñu kii moo rey dañ ko war a yóbbu place bu yaatu ñu teg ko fa ñu rendi ko comme nu mu reyee ñu reyee ko noonu yow saa saam sëriñ bi moo ñu gën dëgg la xam lan wax mu ne suñu dëgg la <laughs> diine islaam dox. macha allah bi. Mhm. ah ngi noonu nag euh, loolu mënu woon ñàkk benn point la boo xamante ne faaw ñu daal koy waxtaanee waaye nag da ngay borom xam-xam. di koo xamante ne da ngay jàmbaar loolu ci wàllum lasaraar rawatina ci wàllum ñaan ñaan ak faj. Euh, tey ñu fekk fii ca kër fas yéene waxtaan ak ñaan nga xamante ne moom ngay faral di def waaye ba ci jiitu dafay bokk ci butéel boo xamante ne nii wax dëgg fi yàlla Sénégal xam nañ ko bitim réew xaw nañ ko àdduna xam nañ ko mm. sëñ bi butéel ba la bëgg nga présenté ma ko waaw kooku mooy moo ngi nii dañ wax ne. Mhm. li ñuy def Maroc ñu def ko Sénégal. Mhm. comme ni ñu amee dëkkuwaay Sénégal noonu la ñu amee dëkkuwaay Maroc tamit. Mhm. léegi nañuy dimbalee jàmbur yi raxatuma ak suñu réew. léegi nag ñu ne dañuy def promotion màggal. ak gàmm yàlla dogal na promotion màggal bi jàll na. waaw mu des gàmm. bii nag mooy fàttu màkka. bu fekkee liggéey dafa nekk sa yaram. bu fekkee da um dafa nekk sa yaram. bu fekkee da ngaa ay kayit. mënoo ko jot. bu fekkee ne tamit lu lay sonal la. Mhm. li nga xam tabe rap lu lay sonal la. fatkhu màkk baa ni nii. Mhm. ñaari fan nga way sango yalla mhm. defal say mbir wa zahiran wa batni inshallah nak bi iznillah. waaw ndax lepp lu ñu def dañ koy defé ci. yollu suñu borom. lepp lu ñu def tamit day wax inshallah allah ndax bi sallallahu alayhi wa sallam fi gën. ben baat la faté wax mu inshallah wax yu waccatul ci mom deug la te yaronte bi ñu gën. dem na bu mu ko ay joy wala mu dikkal ko ay ci bay wax ak yàlla. Mm-hmm. si la ko yàlla joxe wadduha mm-hmm. fan la ko jeexale ba wajja dëgg xaa ay lan faaxanaa mm-hmm. ba saar bi yegg ila liqaa kon donc wax dëgg yàlla ñun lépp lu ñuy wax wala ñu def bi isni laa la ñuy wax wala insha allahu rabbi kii nag mooy fatxu Màkka quinze mille lay jar quinze mille ne quinze mille la képp ku ko jënd livraison bi gratuite la livraison bi gratuite la waaw promotion bi nag mi ngi jeex insha allahu rabbi bésu gàmmu bisu gam wa si lay jeex. la promotion bi di jeex. waaw si lay jeex tàkk. incha rabbi. ah mais sëñ bi baaru jeex après nit ñi di la waat. waaw sëriñ bi ñu première loo bi dafa jall sax bi deuxième la. deuxième loo bi. waaw mooy bi nga xam moom moo jëm. gàmmu gi sha allah sallallahu alayhi wa sallam. sëñ bi bu bele bi bala bi bala. wa bi nak moy chat chat ñi nga xam chat daf leen sonal te olof nee chat su reyul. semmal semmal deug la. waaw kii cat. bismillah. Mhm. Mhm. livraison gratuite. foofu pour mënti nek ci biir Dakar Ndiaye mu fekk la fa. Mm-hmm. Europe États-Unis fépp foo mënti nekk yóbbu la ko ci GP bi GP bi lu koy lii la ko incha allah rabbi ci kàttanu yàlla mm-hmm. waaw macha allah ayca mi ngi noonu euh, bu verte bi sëñ bi moom li ma si jaaxal mooy ay affaire du ko moderniser loolu dinaa si daal di ñëw sax bi nga xamante xam nga xam elmu nujum la waaw waaye xam nga yu bëri duñ ko tasaare ci ay internet ndax baatin moom mm-hmm. baatin la rek dafa mel baatin butit la mel xam nga butit mënoo ko gis dëgg la tam mi ngi dox lu Mhm. ngi defal lu reey ci jëm ji dëgg la te su génnee rek xamul ne jëm ji dem na xayma wallahi dëgg la kon baatin kenn du ko sànni dëgg la acci <laughs> bu verte bi budeel bu verte bi man moom bii laa koy tudd laa ko xàmmee budeel bu verte beeg budeel bu bële wi kii nag moom mooy asmaaw ba tëtti macha allah lañ ko liggéey kaaraange la kaaraange waaw mooy juróom-ñaari doom yi ñuy wax kay fa sa jamakin kaslaon yaxlosun faakalamu shakalu jamaw magloon kalaw mhm. ak talzam bu teld boobu bu sedd boobu mhm. bu sell boobu ñuy wax katiyaati mari ana shuqanakum maqwaanu Mm-hmm. moom lañ koo liggéey mm-hmm. kii nag moom kaaraange la kaaraange xam nga kaaraange soo ko amul dañ lay neex comme gis nga ni ñu def ñoom kii ci loolu laa bëgg a ñëw te dafa jot sénégalais yi ku nekk daal di am kaaraange <laughs> waaw kaaraange total mm-hmm. sëñ bi ñu ñëpp ñu bari Mhm. di jël ay kaaraange ñii di leen jox ay ndommoo ñu koy takk ñii di leen jox leneen ak leneen leneen mhm. yow nga indi ko def ko genre sangat la xawma lu mu doon def ko ci butéel moderniser ko ba mu rafet sëñ bi xam liggéey boobu wax xeetu mhm. lay wax sànq baatin kenn du ko weer dëgg la waaye dana ci cof tuuti cof tuuti moo tax ma wax la ci doom ñu ngi koy liggéeyee te doom ñu ngi koy liggéeyee ñëpp ku xam kaaraanga dëgg waaw kay fa sa jamakin amu ci morom dëgg la ci kaw suuf Mm-hmm. te li ci gëna graw mm-hmm. bi so koy sago am lu mi andal li muy àndal dañ la koy may. dañ la koy. may may. waaw waaw. hein soo ko sangoowee. waaw da nga sangu. wa bu fekkon non dafa am ku la don nono mm-hmm. yërëm ko. bu fekke dafa am ku don liggey jëm sa kaw yërëm ko. su la balu ak di nga gis dina nek ci ay jafé jafé inshallah rabbi ci yalla yàlla. Hmm? wallaahi te li ci gëna graw bu fekke dafa fekk dara sa yaram. waaw da koy dindi delo ko ba pare ar la nak ku la song am jafé jafé ba pare aar la. waaw ku la song am jafe-jafe. waaw waa asmaa wu bëxtati ngay àndal incha allah ci kàttanu yàlla. macha allah. waaw muy juróom ñaari doom yi ma tudd ak seen ndey. waaw kay fa sa jama gën. moom mhm. ngay àndal la incha allah rabi ci kàttanu yàlla. <laughs> macha allah. waaw ayca mi ngi noonu. <laughs> Mhm. wax ne rab. ko ak rab gisoo li ngay gis fii ne. livraison bi gratuite ci promo bi jour gàmm ci kàttanu yàlla. li ñuy def Maroc rek lañ def fii dëgg la ndax fii suñu dëkk la tamit fii lañ dëkk mënuñu mhm. dem jëriñ ñee bàyyi ñi mun ta nekk dëgg la waaw kay li mhm. nag mooy mhm. tàqalikoo ak rab ni nga rab ñu mu sonal tàqalikoo ak rab waaw rab dalay kon yow rab moom doo xëcc nit ki di ko di ko xëppi sunguf ak di ko sang bam toog nangam nangam Sénégal gars yi dañuy calme dañuy calme dañuy yëngal rab ba pare calme ko dañuy yëngal rab ba pare kalme ko day tàqalikoo ak moom incha allah rabbi ci kàttun yàlla hmm? incha allah bi iznillah ak ni mu rafetee ni ni mu modernisé gars yi nga xamanté dañuy ñangal bu mu ñàng rey lay tour ni ñuy ray lay ay ginaar ak xar déggoo ma la wax ki day takalé ga mom insha rabbi amna ñu ko ñam ma mhm. téléphone tay suba rek ci mujj masha allah wallaahi azim dafa am téré bi mu and nak sa tour mo ci nek mom ngay tak hmm fekkee rab bu bon la rek lolay yakala inshallah da nga takalé ko mom ci katun yalla di nga takalé ko rabbi ci katun yalla ya nga gis 15 mhm. xam nga kon bëgg nañ jërëñ wa Sénégal ok mi ngi noonu mais sëñ bi ci wàllu rab xam nga xam nga tey jii ni nga koy ni nga koy ni nga koy defaree nii dafa dafa mucc ayib. Mhm. tey fii ci Sénégal bari na mara dañ naa la dañ lay tuural wala ñu reyal la deret wala ñu sa xëpp la sunguf ak nangam nangam xëpp la ba nga tooy dugale ci kii yow nga jël lii ba nga xamante ni sax même sax koo xamante ni ak nu mu mënta mel ak dayo bu mënta mën na ko sangoo mhm. euh, xeetu liggéey bi maanaam liggéey bi nga li nga koy liggéey liggéey mucc ayib bi waaw liggéey bi nag liggéey la mhm. départ bi dafa sori bu sori la te yàlla daa dogal dañoo génnoon ay at ci àll bi. dëgg la. yàlla dogal bi ñu demee ba yàlla dimbali ñu lañ am. ñuy mhm. akub néew ci xam-xam. Mhm. dajaguñ lépp nag ndax ay ndongo daara lañ. dëgg la. ñu ne dañuy ñëw dimbali suñu dëkk. dafa mel ni góor yàlla bu dem tukki uti alal. Mhm. ba pare ñëw toj kër yaayam defaraat ko. dëgg la ñu loolu lañ ñëw def si. dëgg la fii mooy suñu kër ndey mooy suñu kër baay. macha allah dañoo demoon uti. kon suñu ñëwee dañoo war a jëriñ ñi fi nekk. macha allah ba pare nag fexe nag ba ñëpp jot ci. dëgg la ñépp jot ci jot boo xam ni. Mhm. jot bu mucc ayib lay doon. jot bu mucc ayib. bu mucc ayib. Mhm. waaw ñu ñëw ci kii. Mhm. kii nag. waaw. moom mooy Youssouf. Youssouf Bayro Youssouf. yow mi nga xam ne da ngay jaay mu ne kàkk. yow mi nga xam dangay ngay GP. yow mi nga xam ne foo mënti nekk ci àdduna bi. loo mënti def wàllum jaayu business bu mu mënti doon. waaw soo ko sangoo incha allah yàlla day def taw féex. mo bayre bi tan li ci gëna am solo. muy lan to doy war hmm moy manam bu fekke da won dajale da ngay dajale. han ah? yalla xamna na ko. sama zargi demal sama TikTok. hmm nga dégg témoignage nga tapé Cheikh pap Diagne nga dégg témoignage ci yusuf hmm ñi ma koy jox fi ñoma leen ni ñëwaat motax ñu andi waat ko boole ko ci promotion bi. hmm wallahi yancim quinze mille la. quinze mille foo mënti nekk ñu livré la ko gratuitement. macha allah nekkee Europe la dañ la koy yóbbal ci GP bi doo fay. waaye GP bi rek ngay fay mais cag-cag bi koy yóbbu ci. GP bi bi yow doo ko fay. doo ko fay gratuit maam lu mënta doon moom livraison bi gratuite la. gratuite la. macha allah jaay garab ba pare aar la ba pare dimbali la ba pare livré ko ci gratuite. waaw macha allah. waaw kii moom ji nga couleur bi nu mel. waaw. <laughs> yéeme na de. kii mooy basmala 12 12. basmala 12 12. waaw basmala du ko ne xam na ko moom. maa ko maa ko maa ko maa ko codé. te soo xoolee ci fii dañuy def ne ubbeeku 12 tobb. Hmm. mbirum pël la. mbirum pël la. te xam naa ni pël yi xam sunguf suñu déggee ma ne bas ma la douze douze ma ne douze tob. Hmm. dañ ne waaye sëriñ bi moom fu mu jàngee. dëgg la. Hmm. macha kii nag moom sang bi. waaw ut ubbeeku sangoo ko sangoo ko ubbeeku woo bàyyil ubbeeku. ah. dootoo ubbeeku ci kaw suuf incha allah. bii boo ko sangoo ubbeeku woo. bi déggoo lu ma la soo ko sangoo ubbeeku woo dootoo ubbeeku. dootoo ubbeeku ci kaw suuf. waaw. waaye bii gisoo dafa différent ak yeneen yi. bi bii 35000 lay génn. bii promo bi si 35000. 35000 promo bi. <laughs> kon sëñ bi budul promo moom gratuite ba pare topp yu muy àndal 12 topp la. si hmm. gratuite la dañ la koy mayaale. dañ la koy mayaale. waaw. kon sëñ bi yow doo joxe butéel ba pare bàyyi nit ku mu dem. déedéet. Hmm, kon daal gars yi butéel yi rek lañ mën a gis. déggalu ma la mag ñi xam la lañ wax. waaw. ci bisimilah rahmaani rahiim. Hmm. alaama bi xaq bisimilah anta ilaahu naa wa ilaah kulli shay'in Mm-hmm. anta mm-hmm. rabbana wa a kulli shay'in yaa rabbi anta arzuqni wa rizqan mm-hmm. wa ilman wa xubiran wa tawilan wa falaatan xaasiratan min dina tawaxan xam na sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa taslima kon bismillahi rahmani rahim mooy umul kitab dëgg la umul kitab mooy ndeyu téere te yaay mooy jur ku ne président ku ko jur dëgg la président ku ko jur jigéen dama ko jur yaay ko jur wala yàlla ko jur yaay ko jur yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam mi xam mo gën ci kaw suuf ku ko jur. yaay ko jur deug la kon kii ku ko ubbe ko doto ubbe ko wallahi deug la ma la ko garanté. allah Aïcha <laughs> mi ngi ma sha allah. Ya, ki am na mom chat rek moko ko jog wax nañ ko legui ni waw mais daf bi baax nga insister eh, parce que chat nak wax deug fi yàlla. mom chat rek ko jog limi andal ño la koy may. limi andal waaw bi. waaw. waaw ño la koy may. ñu ñëw na ci nga xam moy neexal kër gi. Ah, kooku mooy ngóor gi. gi mhm. nga xamante ne àdduna bi yëpp wax dëgg fa képp kuy dund. waaw ah. bëgg mu baax. xam nga lan la tudd. waaw. wàcc ma maa bañ. wàcc ma maa bañ. <laughs> ça veut tout dëgg la wàcc ma maa làng. dëgg la waaw ça veut tout dire. wax gën a garaaw day fajale estomac. wala biir bu mett wala biir bu am gaz. wala mm. ballonnement. même mm. hémorroïde. waaw. maanaam parce que xeet yi may tudd nii yëpp su nekkee ci yow munoo am ngóora. ngóora dëgg la c'est impossible. munoo am kattan munoo am kattan. ay ballonnement su nekkee ci yow ay estomac biir bi metti boo xam ne gis-gis bi bariwul xam ne deret boo xam ne dafa am kii day raxas deret lépp lay def dëgg la ba pare day enrichir sa sa deret mhm. ba li ci gën a am solo mooy da lay dimbali ci wàllu sëy da dimbali ci wàllu sëy waaw di wax ne benn bi nag moom mhm. baax na waaye ñett yi moom moo gën ñett yi moom moo gën ndax mu gën a saf sa yaram mhm. mu gën a baax traitement bi duñ ko wax fii xam nga gars yi dañoo bëgg a la moo tax duñ ko wax fii. Mhm. mais suñ la ko jaaya rek dañ la wax traitement bi ni muy doxee ak leneen ak leneen. ni muy demee. kii nag moom waaw. ñi nga xam dañoo yor AVC. sonn AVC wallaahi. sëñ nga laal de AVC. wallaahi azim. ah. ah wow ñu yor AVC sonal leen sang bi. trop trop sax. kii pomade la. frotté la boo xam ne fi nga xam ne moo bañ. waaw wala fi nga xam sidit bi fa la bañ. waa koy diw. da ko fay diw booy tëdd nga ligg nga diw ko nga xool. ah. sëriñ bi. kii duñ ci yaatal lu bëri ndax dañ ci yàgg def karaama. dëgg la. waaw duñ ci yaatal lu bëri de waaw ndax yàgg nañ ci def karaama lool lool lool lool lool. Mhm. waaw. macha allah yàgg nañ ci def karaama bu baax a baax. macha allah. atia mais bi euh, balaa ñu koy tëj dama si gis benn genre pot bu weex boo xamante ni wax dëgg fa yàlla boobu. Mhm. Euh, peut-être moom moom mooy potu AVC. parce que nag xam nga pommade bi dafa doy waar dafa doon mhm. pommade boo xamante sénégalais yi dañu koy daal di yittewoo surtout mag ñi nga xamante ne wax dëgg fa la ñuy faral di AVC mais sëriñ AVC nga def ko ci ba nga xamante ne nga ko def genre frotté tey nit ñi neneen lañ koy joxaatee yow nga liggéey ko mucc liggéey bu mucc ay bi xam-xam bi fan la jógee ak fan la fan nga jaar ba tax tey jii du ma ne xam nga lu nit ñi xamul waaye dangaa dangaa différent ak maaraay ni ñuy ñaanee waaw xam nga jamono xam-xam day dox jamono yonante bi sallallahu alayhi wa sallam li gars naan bidaa mhm. nee naan lépp lu am ci ginnaaw yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu te ñi koy wax ñëpp ci ginnaaw yonent bi lañ judd dëgg la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu waton day yek avion mhm. du yek fas de dëgg la waton hmm ci auto yu gëna rafet yi lay lay yek dëgg la ci kër yu gëna a rafet yi lay dëkk mhm. lu koy moy hmm ñi koy tay hmm wala ñi nga xamni ñom ñoom sallallahu alayhi wa sallam rek ci ndigalu lañuy tënku mhm. baye ay terem dëgg la te ku tënku ci ndigalu yonentu baye tere yonentu moy tënku ci ndigalu yalla baye tere hmm Mm-hmm. ñi nga xam ci moom rek lañ aju. Mm-hmm. mooy ñi nga xam ne dañuy tagg yonent tey ci 4 x yu baax la ñuy dawal. dëgg yu baax la ñuy te taggkatu rek lañ sallallahu alayhi wa sallam. dëgg la kon jëmm jooju su doon dund ba tey ci lan lay dëkk. Mm-hmm. sëriñ si tey muy cheikh mu rabbi muy say ijaaza yi. mooy ñi nga xam ne ñooy xalif général ci li ñuy tëdd sëriñ bi dañu waxante dëgg. kër yu baax la ñuy nekk lu baax la ñuy nekk. dëgg la kii moo leen di tey suba ba ngoon jot. te yonent bi amul woon lëpp dëgg la kon jamono moom mooy dox. Mhm. jamono su doxee mhm. da ngay dox ànd ak moom dëgg la yaa ngi dégg mhm. ay jamono xam-xam daaw koon dégg ci tele wala daaw koon dégg ci internet dëgg la wala daawoon ko dégg ci nangam dëgg la xam-xam moo dox ba tey muy jàll ci télé wala muy jàll ci internet dëgg la léegi tey loolu noonu dox tey moo ñu yóbbu tey ba yàlla di dimbali ci suñuy gëstu ba gëstu ba xam ni gëstu nañ lu wér péng yàgg nañ ko def yàlla du ñu defal tawféex ñu ne nag lepp lo gis ci aduna bi dañ koy moderniser. deug la nax bu ñëk ba ay juma ñax lañ yoron wala ay jakk ñax. deug la tay jii ay juma yu climatisé ay jakk yu climatisé. deug la xam-xam day dox. comme ni tuba bi jëlé tay garab. ba liggéey ko liggéey bo xamni mhm. mën na day nekk ben da koy liggéey liggéey bo xamni day nekk ben comprimé mhm. te pourtant ay garab la jël. deug la ah ñun nak war nañ ko mën. deug la nax alquran bayiwul dara macha te li ngay gis ni yeb alquran da koy safar deug la ndax yalla mo borom shafi hmm motax nar yi ma nekkal fele so waxe diw la feebar allah shafi hmm mune yalla yalla yàlla hmm parce que wér ci loxo yalla la nek deug la kon donc kon ñun suñu demee ba jangi dara. Mhm. ba am ko tay hmm lima la waxon sank rek ñuko kenn ku du wa kër. deug la ñuko lenn du du wa dekk dëgg la tey jii Maroc la nekk di ko fa def yàlla ñu dimbale. kon mm-hmm. war nañ mën a ñëw fii dimbali si suñu am di jàmm dimbali suñuy mbokk. dimbale fii mm-hmm. ñi nga xam ne suñu dëkkandoo la. Mm-hmm. suñu ñëpp la. ba pare ci liggéey bu mucc ay ba pare Mm-hmm. liggéey ko liggéey boo xam ne liggéey bu set la dëgg la liggéey bu sell la jox ko jaamu yàlla yi ñu jëfandikoo ko yàlla def ci sirrum macha allah def ci mbóotam mm-hmm. ci barke alquran loolu la ñuy ñaan macha allah waaw ayca jërëjëf kilifa gi kontaan nañu ci teew bi teewoon fii sa kër doon waxtaanee li nga xam te ne moom mooy wàllu xam-xam la ngay daal di tàggatoo ak euh, mbokku internet yi waaw di tàggatoo mbokk jaamu yàlla yi fépp fu ñu mënti nekk ci àdduna bi mm-hmm. di wax ne nañuy muñalante nañuy dimbalante nañuy wóoluwante dañuy jàppalante ci zaahiran mhm. ba baatinan dëgg la li alquran wax wala li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mhm. nit mënu ko dindi dëgg la jullit mhm. jullit rek mooy moroomam dëgg la maanaam jullit jullit moo koy jëriñ mooy mbokkam comme yàlla moom reconnaître bu mbokku deret waaye reconnaître na mbokk pas-pas nañ fexe ñu góor góorgóorlu ci suñu diin islam nañu fexe ñu defar suñu jikko yi dëgg la nañu fexe tamit ñu defar suñu xol yi. Mhm. nañ fexe ñu defar suñu xel yi. macha allah may wax ni sëriñ bi lu ma ñor la. Mhm. ndax nit ki su defarul. mooy waral tey mu tiim morom nitam di ko rey. dëgg la nit su defarul mooy waral tey xamul morom nitam lu mu yor nii. pour mhm. da fajee yaayam wala naag mu sàcc ko yóbbu dëgg la nit bu defaruwul waaye nag dafa bëri. nit yi nga xam dañuy wane dañoo defaru fekk defaruwul. dëgg la ndax loolu amoon na jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. am na ñoo xam ne dañ daan yéefar yoo xam ne dañuy sol solu jullit mhm. di dugg ci biir jullit yi di leen rey jamono yonent bi loolu mi ngi am ba tey yàlla nañu yàlla musal ci ñooñu macha allah yàlla nañu yàlla alagal ki nga xam ne day xeex diine islaam mhm. ak ñi nga xam ne dañoo yor jikko yi nga xam ne bokkul ak jikko yi nga xam ne moom la yàlla gërëm yàlla yàlla soppi leen macha allah nañ bëggante mhm. nañ jàppalante nañ dimbalante te xam ne ñun ñëpp benn jëmm moo ñu meññ macha allah muy aadama ndax aadama moo meññ awa awa meññ ñi fi nekk ñëpp dëgg la fi ñëpp ñëpp soo leen delloo ci awa nga jël awa delloo ko ci aadama mm-hmm. aadama soo ko joxaatee fu mu jógee rek day dellu si jëmu yàlla ci dëgg la kon nañ nekk benn mm-hmm. dimbalante mm-hmm. jàppalante wóolawante yàlla yàlla sàmmuñu yàlla defal leen tawféex jërëjëf yokk télé bi mu nekk ay télé yi télé amiin li may wax nii su ma xol laa ko tudd amiin yaa rabbal amiin wallaahi azim te gëm nañu yàlla dina def amiin yaa rabbal seede yàlla ndax boobu léegi téléphone bi seddul wallaahi amiin amiin waaw kontaan nañ ci teewaay bi jërëjëf wallaahi jërëjëf jërëjëf jërëjëf wallaahi wallaahi jërëjëf ay internet ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax topp ngeen ñu toppoon waaye rawatina ànd bi ngeen ànd ak ñun tey nag ñu ngi jàkkaaroon ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Pape Diagne mu doon koo xamante ne kenn dootu ko présenté ci réseau yi waaye rawatina ci internet yi tey nag ñu fekk si woon ko si këram doon waxtaane li nga xamante moom mooy xam-xam dinañ jox nag dig daje beneen incha allah ak beneen invité merci beaucoup jaajëf